ramadaanangi weru uh-huh. yërmande uh-huh. ramadaanangi weru njëggale ramadaanangi weru yërmande ramadaanangi weru njëggale aleykum aleykum salaam xale yi na ngeen defati yéen ci bi rek da ngeen génn sax nga ne maam moo tax da nekk ci jaarama nawet bi. koor gi tàng na de. ah gis na mu nii. xam naa ne moom la sonal moom lii. soo yëngu wax naa la génn sama wax ni muy ba taay. moom. toll nii kay. xanaa xanaa moom li man dama sa borom sa bàyyi laa jox ma cër. baax na ma cër. waaw ñu amuloo waxoon démb. nga ma li ñuy si non gis nga dama fekk obité nekk ci online sama kii bi jàng. waaw nañ dem rek. bu paree laaj nekk balaa balaa tisbaar bi jot. waaw léegi waxtu bi jot suñu tool yi. su ko defee balaa waxtu ma topp yii yi nga xam amul benn njariñ. yii maa ngi nag baax na. waaw di ko rek xamadi ngeen trop ah wax seen entrée nga woor. waaw bu doxee nga takk yi nii ma da ngaa amee xuma day teg sa weer waaw dama am kii bàyyi soo ma xam bàyyi. lii moo gën a gaaw nag. suñ ñëwee ñu war ma nan lañ jàppoo. waaye comme ma doon seen ñu am kawas yi teel ah. liggéey moo gën a gaaw. moo gën a gaaw waaw. bisimilah. topp daal yaakaar naa ne kon baaxul. moom moom. bu dee. waaw dafay jàllale ndox mi. waaw wóor. foofu nga dëgg de. la leen day ji du ya ji bu yàgg nii rek. lay daaw. kon yow man. kay ba. waaw. fii Fata. fii. waaw. fii nga waxoon yéen fële nii yéen. waaw waaw kon fii. yaa ngi fàttali dikk la fi. muy barab ban. mooy bi nga daloon bi nga yéene sa xol ak bi nga war a wax sa kaw ak bi nga sa xel. non. voilà. bi nga yéene boo yéene pare mooy nag sa kàttan. ah di farata la. ah waaw. Ah. Ah, kon bisimilah. man de boo ma. waaw ñoo waxaate. boo ma lépp naa. ah lépp. ma ne fii rek laa daan def. lépp fii lépp. ma ma def. foofu la ko baax a ah, baax lii daal lii mooy lii ci bokk nga waaw am na mu leeral ma ko fàtte njàng mi kay jibin di xool di liir la amul waaye bu fekkee leer naa ñi ngi ko jàngalee kon ko gaaw a fàtte moom li nga si farata yi la bokk. si farata yi la bokk. waaw am na farata man mooy farata bi. dem bi. yéen a yéexal saa yu wax dëgg damaa yéexal bopp moom. waaw. man bàyyi ko mu fi nekk. defal teewul la seetal gi. allez bii la la. bii. bii moom fàttali naa ko jàpp ko. di farata la ah waaye di leen semence dafa wax am solo. waaw dafa faral di booy jàpp. am na ñoo xam ne da nga raxas. dama fi rek waaw. fii da see war a bokk léegi nag boo ci bàyyee lenn wéy lu dul ah xooli ñaar ñaar boo ci bàyyee lenn lu tuuti loo xam ne dëgg loolu ndox day wax daal kat dama mënoo sama dara. si maanaam daal yow man su ma la déggee maanaam. fii daal da see war a bokk fii lépp. man fii rek laa raxas. lépp nag sama bopp moo moo tax laaj bi ma la laaj nii am na solo de fu mu toogoon fee ne du ma ci xam lii lépp ah. ah Mathieu damaa dal waaw. léegi nag xanaa baax na maanaam gaaw gaaw boo ko déggee nag mooy farata du pare waaw nga teg ko def ko farata du pare nga méngal ko tax nga méngal ko nga diggéewal ko ba nga jëfee nit ñi dégg dégg jàpp naa ko baax waaw wóor fi mu doon nga xanaa la ma waaw waaw fi mu doon nga xanaa